xam nga dañuy wax tuuti ci actualité bala maa dem ci reportage bi ndax euh, dafa am xale bu ñuy wax maman Aïcha euh, moo réeroon dimanche uh-huh. euh, dimanche après màggal gi le 26 defe naa ni ci la réer uh-huh. bi mu réeree nag moom ki nga xam ni moom mooy maman Aïcha wër nañ ko koñ bi tamit uh-huh. jàppale nañu ci wër bi papaam nag taxaw en tant que papa en tant que responsable bi mu laajtee bi mu waa jógee fa mu jugee ñëw laaj yaayam ni ko maman heure bii daan na ko fekk fu mu nekk dama ko yónni woon mais dafa taxawaalu jiw waaye bàyyi lii du jikkoo kon maman miin nañ ko lii du jikkoo mooy miin nañu ni kon du taxawaalukat du taxawaalukat li tax papaam ni dugg ci saal bi te gisul maman mooy kon maman daan na ko fekk daan na fekk maman ci saal bi mhm. kon li ñuy jàng mooy maman du taxawaalukat mhm. léegi nag ba ko rek information beneen information di ñëw. Mhm. ci la ñu ci la laaj kan la àndaloon ñu ni ko diw. mu dem kër diw. Mhm. kër diw kooku ni ko àndu dañoo tasante. Mhm. loolu nañ ci bàyyi xel. dama doon dem ci wéef li papa ji dama doon dem. ci wéef bi waaw. ci wéef bi moo tax ñu tasante mais ànd ànd ànd woon ak man. nee boobu man responsabilité xale bi. Mhm. génn na ci. ok moom continué di seet doomam. Mhm. mais am na ñoo xam ne gis nañu guddi googu mu ànd ak xale boobu. mooy xarit bi xarit bi. ok ba waa kër monsieur Ndong. Mhm. ñoom demoon nañu demoon nañu ba nga xam ni. demoon nañu ba nga xam ni sax naroon nañoo naroon nañoo euh, jóg. ataage ji li nga xam ni moom mooy kër. xarit boobu. muy euh, fara euh, papa di moom tudd Famara Famara Ndong. waa kër Famara Ndong demoon nañu pour attaque ji li nga xam ne moom mooy kër xale bi. Mhm. ba waa kër xale boobu. Mhm. teel a police ba police ñëw fa. Ah. ci responsabilité fara fara fara Ndong waxtaan ak police. Mhm. ba yóbbu fa kenn. wala ni kenn ku nekk di nga yem sa moroom moom mu continuer ay démarches tam ba police ñëw na fa après. jël xale bi nga xam ni moom mooy xarit bi def reconstruction mooy fan nga jaar ak mhm. fan nga jaar ak sa xarit bi mooy Aïcha Aïcha mhm. foofu nag dafa am leneen lu ñuy mooy kon Aïcha mujj naa nangu ne ñoom ñaar tasewuñu mhm. kon ñoo àndoon ah. mais beneen bi moom mooy ci information bi ñu am mooy euh, euh, maman Aïcha moo jóge këram dem kër xarit bi pour mu gunge ko. gunge ko waaye yooyu la ñuy def. parce que loolu confirmé parce que loolu xale yi dañ koy def. dañ koy def dañ lay ñu def mm-hmm. léegi nag ñu wax ni xale bi moo demoon kër euh, ay maman Aïssa moo demoon kër xarit bi. jëli ko jëli ko ñoom ñaar ñu ànd bi ñu defee reconstitution bi defee bi mooy fan nga fan la la jëlee fii la ma jëlee dem nañu ba fa ñu demoon. Mm-hmm. retourné waat ba moom fi mu mujjee gis maman Aïssa. Mm-hmm. police ba ñu bàyyee xale bi. xarit bi. ci la am beneen xale bu sol maillot ñëw ni waa police gis nañu ku tëdd place màngam ah. ci bassin bi ci la police dem fekk nga xam ne moom mooy ko ñëw waa police gis nañu ku tëdd place màngam ci bassin bi ci la police dem fekk li nga xam ne moom mooy kooru maman ay sa foofu muy néew muy néew ci papa ji information yi nga xam ne jot na koo wax nee na moom bi mu yéegee ci kaw terrasse am gis na ni gars yi defatuñu recherche mais lieu de crime moom moo fa am mooy gis na police ak sapeur ñu ne fa nee na li li mu gis ni moom mooy génn mooy li ñu ko waxoon ne ko moom la sol gis nañu bi ñuy génne xale bi gis na lu mel noonu sixième séance am mhm. sixième séance am wax ko ni ko kon dey sa doom moo nekk ne allahu akbar nee na bi muy woo waa police waa police nangu wuñ koo jël ndax information bi oh. woo na benn xaritu commissaire am mais xaritu commissaire bi mu amee information bi nii mm. doom ji la moom it nangutu ko maman Aïcha mm-hmm. bi ñuy def reconstitution des faits mm-hmm. ci déegi mm-hmm. dinañu wax ni diw ak diw ci la bokk maa ngi ciy dégg ñuy wax ni mort naturelle la mort naturelle mënu cee am ba ci biir canal ah day jeyeexu di jeyeexu waaw ah, ba loolu mënta ne mënta ne moom mënta ne mais xarit bi moom it bu dee xarit bi moo ko jël si si biir këram mm-hmm. ànd ak moom mm-hmm. ba fa ñu demoon ñu retourné waat mm-hmm. parce que maam ji confirmé na ni xarit bi moom muy maman Aïssa moo dugg ba ci biir këram jël si xarit bi ñu gunge ko ok waaye nag koo gunge ale war nga koo mën a gunge retour retour mm. mooy moom fan la tàggoog maman Aïssa ndax maman Aïssa daa duggaat ba ci biir kër gi na yooyu yëpp enquêteurs yi dinañ ci wax muy actualité boo xam ni euh, dinañ ci ñëw dinañ ñëw euh, ci euh, kooru maman Aïcha nag. Mm. jamono ji moo ngi sétéwoo. sétéwoo ok pour autopsie bi. Mm-hmm. buñ ci paree tey tey am nañu yaqin ni dinañ ko jëlee sétéwoo di yóbbu ko Bargny pour denc ko tey ndax lépp yam tey mooy information yi ma am mooy tey incha allahu bu ci médecin bi paree ci autopsie bi rek danañ koy jébbal. Mm-hmm. ñu dem kii ko nu mu Euh, dem denc ji ko fi ñuy mujjee rek moom mooy yenn actualité yi ci amaat euh, muy fu mel ni euh, taximaan bi ñu rey ak ki ñu rey fële ci yëmbal ak ki ki nga xam ne tamit moom la ñu gor ca Touba loolu dañ koy boole yëpp xajul ci waxtaane ko mm-hmm. dañ koy yóbbu ci kawteef insha allah dimanche vingt et ca rajo ba dinañu détaillé parent yi nga xam ne ñoo seeq tamit euh, te ñu deelee wala ñu jiiñ leen ni ñoom seen mbokk dafa bokk dinañ leen dugal téléphone insha allahu dimanche euh, ci émission Kawtef ci rajo ba dañuy daal di rek euh, dem déglu ji reportage bi waxtaane thème bi muy xaritoo wax jooju nag est-ce que mën nañ ko wax ba léegi jot na nag ku ci nekk ci ñun daal dee samp laaj leer ba wóor mooy jamono bi nga xamante ne daaray Kocc mu ngi doon bind scénario bi doxoon diggante xànju ak ndate moom dafa mel ni weesu nañ ko wax jiñ doon bàkkoo foo pikiiroo ma naan fay doom boobu itam dafa mel ni xewi na secret yow bëri yi nga xamante ne dañ koy gis ci place publique bi mariage yu tas saay loxooy xarit ba mu nga ca xaritoo nag donte bëreewul waaye lu ama am la gis nañ nag ni jamono ji dafa mel ni kay puso bi dafa nar a réer ci suñu ay loxo ci jamonoy maam xaritoo nag nekkoon lu dëggu ba tuddee doom di ci am ñaanalante soxna ak defalante ay teraanga kóllëre bu sax dàkk moo doon dox seen diggante ba nag ñuy abalante yére takkaay lebalante ceeb lépp ci sutura jamono ji nag ñëpp tiit ci moo bi nga xamante ne mooy xarit tax na sax ñu bëri bëggatuñu wax ak kenn daal di adopté nag li ñuy woowee carrière solo. jërëjëf euh, waa Rési jërëjëf maam Sidi euh, déglu nañu euh, Binta Ba maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax a baax. xarit la ñuy waxtaane am na wala amul ci laay njëkk ñu dugg ci. waaw xarit am na El Hadj Fall Ndiaga. Mhm. Ah? xarit am na. xarit am na. Eh, xarit am na xarit am ah. ndax euh, ñi baax a ngi baax ba tey. Euh, suñu nee suñu nee gëmm leen gumba taxul. yaakaar naa buñu ne gëmm leen gumba taxul. kon am na ay xarit. ndax euh, am na ñoo xam ne dañuy ànd ak yow yéena la jàmm lool. Mhm. Fall ñun fii kenn doful. la yërëm xam nga ko waaw mais nag du ñàkk ci àdduna ak euh, ba nga juddoo ba tey di nga am expérience yoo xam ne da nga koy traversé dina am ñuy ñëw di dem dina am ñoo xam ñi ngi fi toog ku ñëw fekk leen fi koy dem ba leen fi mm-hmm. muy ay xarit yoo xam ne nii vraiment ay xarit lañu nga am ci ñoom confiance teg ci ñuy ànd ak yow ci transparence surtout surtout euh, dafa am ñoo xam ne lu leen waaye wax ci yow ñu capturer image wa ñu transférer dëgg la maa ngi nuyuwaale sama rak sama xarit Adama Mbaye yàgg na ñëw Kafteef Diamant Noir waaw te oustaz Mokhtar sa moñ tuuteel ba rek topp ko rek xale bi nag jotu ko nopp nag <laughs> incha Adama Mbaye doomu Soukayna Fall uh-huh. di ku baax mm-hmm. ndax am na yoo xam ne defal na ma ko ku ma bëgg mm-hmm. ndax ndax El Hadj Fall mm-hmm. ki nga xam ne dafay liggéey sa xarit ngeen di ànd muy liggéey am as salaire te salaire boobu mën na ko jël fenn maa mayaat la ko mu la koy jox ci yow wala mu jox la ko ci mbubb wala mu jox la ko ci greffage jox la ko ci li nga xam ni loolu nga bëgg mhm. ndax man nee naa ne ku la teg ba du la teg loxo te ki nga xam ne dafa ànd ak yow te yàlla tax dina jàppale te yàlla tax kooku mooy ki nga xam ni mhm. sax sa waay la